ñu dem moomoo fu la neex demal waaw waaw cey loolu yàgg des na la ñam kaay nii mbokk yi e e e Momo jox ko moom ngaaka la jox ko waaw a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim gannaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi julli si yonent bi euh, di sant suñu ñaari waajur waaw di nuyu ñi teew ñëpp di nuyu séeréer yi nga xamante ne ñoo fi nekk. ñoom moomu. ñoom yaa mbayam di nuyu ñi ma àndal ñëpp. waxal ci kaw. di nuyu ñi ma àndal yëpp ñoom grand laay ñoom xaadim Thiam. gars yi ma àndal yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu sama grand. Ronaldinho di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom. atia nuyool kaay nii tuuti waaw ñëwal. asalaamaaleykum waa adduna yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ne maa lay nuyu ci sa tur ak sa sant waaw. bàyyi ma teel waxal sëñ Modou Niang sama xaritu papa la. waaw moo sama papa xaritu benn bakkan. yow kuy sa papa. man Mbartine mooy sama papa. ayca. yàlla da koo jël. Mbartine <laughs> Mbartine sa xarit. sama sama yàlla da koo jël. yàlla na ko yàlla na ko yàlla fay xolam. amiin bu ko yàlla fayee xolam rek du sonn quoi. Mhm. parce que dafa baax. ndeysaan dafa am habitude tëggal ma dafa damaa bëgg a tëggal lam waaw. far yàlla def mu mu mu dem génn àdduna. ndeysaan mais sama papa Assane mi mi ngi ci ginnaaw. waaw macha maa ngi ci 10 combats 10 victoire. ah. la 11 la war a jàppal kii defal ko bagage. muy sa 11e combat. waaw 11 victoire bu soobee yàlla. yow boy bi. ah. ah xaw eh, eh, xaaral rek ñu lay waxal. defal eh, yow déglu waay rek. <laughs> waaw waaw paa bi de paa bi paa eh, eh, eh, napp ma la <laughs> man kii li muy lim noonu yëpp lijjantewu ma. waaw waaw ay neuf combats ay dix combats. man lijjantewu ma loolu. ay doomu ay nekkoo doomu mbër. waaw lijjantewu ma loolu. déedéet. ga papam du fa ñëw. magam du fa ñëw. kenn du fa ñëw. déedéet. maag moom lay doon incha leer bu ma ko tàncee kii. barke sëñ Mudu Roqe Mbàkke kii bu ma ko jàppee. mais que xool nga kii est ce que kii ak ñi nga daan daan benn la. père yow xam nga xam nga xam nga xam nga li ma lax bu baax. non ak kii ak est ce que kii bi sama papa da koo lijjanti ba soon aw ma ko ma hmm. xam nga man lam dexuma ci naan maaraw kii maaraw kee. waaw Yékini sax boo mënoon su avance baa ngi mën a indi avance bi xam nga bàyyi na bëri. waaw kon waxatuma la ak ñiy bëri. kon yow kii nga ne a la def ak moom. kii maa ngi moom du combat. kii samay poulain ñoo koy daan ay théâtre kat ñoo koy daan na wax théâtre kat yi may daan ñana ki la daan keroog rek mburoog ndame moo la daan waaw mais man maa jël kiraayoo për ki lam noonu la gis nga lam gis nga lam xam nga kan laa daan fi final ah. seen kumpa ah kii seen kumpa kooku moo ko mën xamal ñi nga daan rek lam mbapat mbapat lan wax ak bëri dóor sunu suñu borom def na def nga mën nga mbapat demal ci mbapat mii man lépp laa mën damay mbapat damay xeex. ñi ngi indi fii nag problème bu gan. yàlla incha allah. waaw incha allah yàlla. la bu doole kóob doole yàlla na ko yàlla may ndam. waaw double yi nga war a bàyyi. solu ay yére ba kër. Eh, déedéet déedéet sëñ bi bañ non déedéet déedéet eh, maa bañ. dañuy séentir. man man damaa sañ sa damaa sañ sa ba ñëw ñu jox ma sama police. ma sañ sa. waaw kay garaawul. gaay eh, bu wax bu mu sumeeku de. gis nga doomu Adama bu ko xeebal li mu am. waaw lii la am moom bu ko bu ko ko xeebal ko xeebal li mu am mbir fas fa yàlla eh, eh, tan amul dara bu xëyee yàpp a xam wuy amul lu mu rey wuy ma fii waaw waxal wooteel yow wooteel waaw bàyyi mu woote wooteel waaw gannaaw bu ma sante Euh, maa ngi nuyuwaat ñëpp. gaawal euh, di woo autorité Tëngéej yëpp. Mm-hmm. waaw di woo Pape Konaté. Mm-hmm. di woo Abdourahmane Diouf. Mm-hmm. Pape Ousmane Sakho. waaw euh, Paka Boy. waaw Lamine Diop. Mamadou Sy. Gorgui Sow. Mbaye Ndiaye Amdi. Albert Ndoye. waaw maire Adji. Moussa Gueye Babacar Xuma. Cheikh Modou Gueye. docteur Nafisatou Diouf. ñëwal As Diouf. maam Thierno borom Daaru ca Sokone. aca ko wooteel waaw man Mbaye Sefa la a woo mi ngi nii toog. ak Ablaye. Hmm. fils de mbaar laa àndal sama seex la. yóbbul tànk bi fa nga daa yóbbu yaa ma gën a xam. Eh, di woo bool bool yëpp képp kuy bool bool maa ngi lay woo ci combat bi. yaa ngi dégg di sama sama fan si club bi ku ci mel ni Ismaïla Ousmane ñoom ñëpp waaw parce que pare nañ instant yi nii parce que sama papa damaa ji balaam ji tëjee ba tey mi ngi dox sama avance. mënumaa fexe ba mu ko bëreel dama damaa baatante yoonu di foncé ba sol waaw di wa bool bool baara jang mm. jàpp na ci bu baax mm. bool bool may man su ma tiitee wooteel sëñ bi wooteel rek non xaaral damay wax ak kii waay mundu ko mudu may may ma tuuti rek moom ngoom day tëgg ma dem moom moo tëggal kon waaw ah. wuy ma bu ma tiitee yal na ma yàlla rey tey barki alxuraan man gaynde laa bu ma tiitee yal na ma yàlla faat wala yàlla bu ma la daan looloo gën a dee waaw maa ngi woo bool bool yëpp di woo asba booy waa <laughs> damaa xëy dem foofu ñu jàpp yaa ngi di waaji ñoom ñëpp ñu jàpp ci bu baax a baax waaw yàlla na defal jàmm eh, yéen du ngeen kuy bool bool daal maa ngi lay woo as ba booy petit momo waaw gambi si dara sama am booy mel ay wooy ñëwal taxawal taxawal basa